Euh, nekkoon aussi euh, ministre euh, yu ñu dénk si pàcc boobu noonu ñu ngi daal di toppee pour escroquerie foncière par des promoteurs fonciers yi nga xam ni itam da digoon ay terre maanaam ay suuf enfin daal éviter toute procédure pénale moom ki nga xam ne que mu di Aliou Sarr mu daal leen joxoon benn chèque ñooñu plaignant yi chèque yi nag danoo jàpp ni dara nekku si mais celui-ci est revenu impayé euh, ma ni kon nag euh, moo tax Alioune ñu dal di ko dina xamné ko mu di euh, mais l'ancien ministre semble avoir recouvrir la liberté dans le bureau du juge les deux parties sont accordées après une médiation pénale à charge pour Alioune de respecter ses engagements suggère la même source Madame nak Alioune Sarr ma ni ko diwul ko parce que Ben duggé ci bureau bi nak waxtaan neen bu juboo

<laughs> da nga fay ñu libéré la nga ñibi même si man d'accord ma ci lolu bo fayé da nga wara dem kasso mais fay na a dem na lolu lay wax ni. Hmm. mané fi bo fayé bo fayé ñu bàyyi la nga ñibi les deux parties ont trouvé un terrain d'entente ni que Aliou Aliou Sarr nee na dina fay gaay def médiation ñu né non non non pare na pour fay comme djigi djop lu mu né paré na pour fay fay na Aliou Sarr tamit ñu dugal ko kaso comme ñoom ñemewuñu kaso mu ne non dégg d'accord lii ngeen ma jiiñ léegi man Aliou Sarr pare naa pour fay la médiation bi ñëw taxaw entre état ak ñoom parti boobu ñoom ñoom su ma nee parti mooy ñooñu ñooñu Aliou Sarr yi ñu ñëw taxaw ñu ne léegi pare nañu pour coopérer pare nañu pour fay gars yi ne ko ah d'accord léegi bu fekkee mën nañu déggoo ci ay kàddu ngeen fay ñu libéré mu ne pare naa pour fay. suuf si ñuy nii rek man. loolu mooy problème bi. mais loolu mooy wane ni que ni que ñoom ñoo tooñ état état gis nga coow lee fi nekk ñuy taxaw dinaa noo defuma ragaluma kaso de coow lee bëri gis nga bu ñu leen nee jàkk nii li ñuy wax si suuf duñu ko wax si kaw de mbër xoolal ma lu ñuy wax si suuf. li ñuy wax ci suuf. gis nga ñoom ñii di jaay géeree géerlu gis nga bu ñu ja bu ñu bu ñu nee jàkk alkaati section de recherche la dikk la la la la division spéciale de cybersécurité gis nga bu ñu leen convoqué gis nga lu ñuy wax ci suuf duñ ko wax ci kaw de ma wax la ko fii ma jox la information bi fii hmm. ñoom lu ñuy wax ci suuf duñ ko wax ci kaw cawlee fii bëri nekk di tànkal sénégalais non dem naa cybersécurité dama ne alkaati euh, ni Bougane nu doon jaay géer yi géer ngi ngi ne kaso di jooy moom moo ne Ousmane Sonko ragal la mbàkkat la <laughs> Ousmane Sonko mbàkkat la ragal la yow Ousmane sonk yow ma yoo xam na man xam naa man buggan maa la gën a ñeme ma ngi ne kaso Tambacounda di jooy est-ce que loolu jox nañu ko tey presse bi mais loolu laay wax ni est-ce que ñoom revue de revue de nañu ko tey pour sénégalais yi comprendre ni mu buggaan mu ngi ne ci kaso di jooy chaque jour di jooy moom mii di doon jaay guerrier guerrier lu fii est-ce que information bobu jox au ko sénégalais pour nous comprendre ni Bougane ma ngi le di joy joy yu metti yu on naan légui maa koy xaar bu jógee kasso inshallah Nous hmm, mu mu ñoo organiser point de presse mu léral ko. parce que taxaw na fi dina non Ousmane soko mo daan feebar Nous lu. mais Ousmane soko heureusement ah, heureusement mo wax moom wax na ko heureusement moom Ousmane Sonko wax na ko ci boppam o que moom Bougane ah. léegi moom Bougane maa ngi xaaral moom bu génnee kaso mu ñëw was def point de presse si Ousmane Sonko ne loolu ay mise à scène ba tey man nangu ma see wax ne nee na parce que yooyu dama ko jëlale quoi nee na stratégie la pour retarder le dossier stratégie la doon def pour retarder le dossier maintenant xam nga lan laa bëgg ci Bougane bu ñëwee mu def point de presse mu ne sénégalais jooy ma doon jooy stratégie la loolu laay xaar ci buggaan bu génnee kaso mu ñëw ci point de presse mu ne sénégalais jooy ma doon jooy ci kaso stra stratégie la woon <laughs> jooyu ma de mais stratégie la woon comme nee ne moom day sonko sonkoolu léegi bu géegee ci kaso bi moom buggaan buggaan dam ko bëgg yàlla daf ma nattu ma bëgg a buggaan <laughs> si si euh, bi

d'après non non non xam ma xam ma xam ma xam ma xam ma xam ma déedéet xam ma xam ma xam ma déedéet non xaw ma non xaw ma Adama Fall ñoom buñ koy non buñ koy buñ buñ koy seet xam nañu fu mu nekk non man gëw loolu gëw ko déedéet gëw ma ko man kenn jox ma information boobu

buñ koy wër quand même pour joko convocation ñom xam nañu fu mu nek xam nañu loolu man gisuma ben yoon ci les autorités judiciaires ñi tok di ñum dañuy wër Adama Fall gisuma information bo la section de recherche la DIC la section de recherche la wa la DIC la cyber de sécurité kenen ak kenen ñoo la gëna a xam yow Fallou bu ko paré xam ñoo la xam ni que fallu fu mu nekk fréquentation fréquentation fallu mooy 5 TV ak Apix fallu Apix la dëkk bu jógee Apix day ñëw liggéey ci 5 TV ñoom bu ñu la bëggee jox convocation ñoo la gën a xam Fallu fàllu Silla fu mu donc jarul toog ci télé dina non ñu ngi wër Adama Silla bëgg ko jox convocation kenn gisu non loolu man gëwuma information boobu gëwuma ko franchement gëwuma ko te bu amee yi tamit bu amee tamit dinaa ko yëg keneen ak keneen dina ko yëg te Adama Fall la concerné gis nga lu mu wax. Mm. nee na yi ñoo ko ko. voilà voilà. Mm. donc fu mu waxee bu fekkee bëgg nañ ko convocation jox ko convocation Adama Fall wax na déjà il est localisé am na wala amul <laughs> donc doo ko war pour jox ko convocation. voilà exactement par rapport euh, ki nga xam ne que moo